dañu gis euh, téléfilm léegi ñu dugal ci thème yi ay kidnapping ay pistolet ay yooyu voilà mu indi violence boo xam ni lu doy waar la te loolu tekkiwul ne mooy théâtre théâtre dafa du xam-xam boo xam ni dafa dëxëñu maanaam boo koy seetaan dañ lay jàngal loo xam ne nii ci sa àdduna mosoo ko gis mosoo ko xam wala boo ko dundee na nga ko dundee wuute na ak nan la koy wonee nga am ci njàng moo xam ni bu ëllëgee lu mel noonu dana la jëriñ jëriñ la ci boo nekkee ndaw xam na ngay waxee ni ngay toggee dafa ci am ay valeur yoo xam ne yu am solo la suñ ko xasee ba perdre nag bokkatul ak théâtre bi ñu xam théâtre boobu ñun suñu jamono bañ ko doon def euh, ay captation la maanaam da ngay jouer théâtre sur scène télévision ñëw di la film loolu lañ tuddee captation

Donc, effectivement, raison. Ndiaye a la raison. Et Ndiaye, euh, dans la vie, et c'est français nag lu naqaree wax si beneen xaaral ma wiiri ndax ma nekk en ci wàllum art si wàllum théâtre kenn euh, kenn dootu la présenté lan mooy différence su théâtre démb ak tey. waaw xam nga laajoon nañ ma question bu mel noonu te tout le temps ñu laaj ma ko. théâtre théâtre rek lay tekki amul bu démb ak bu tey. waaw amin amin amin amin lay bañ monument. loolu ngay bañ. <laughs> waaw waaw. yaay suñu idole. monument dafa jërëjëf jërëjëf merci bien euh, gis nga mooy li waaw waaw théâtre tey nag amul théâtre démb spécifiquement ak théâtre tey. théâtre théâtre la mu sa doon la muy tekki mooy la règle des trois P pensée parole et plastique dama yàgg di ko wax mais loolu tey rek motoon na émission ay émission yoo xam ne mën nañ ko ci def pour njëriñ loolu le ñu mën koo tekki nit ñi gën koo xam. ñi nga xamante ne ñooy dund ñooy liggéey ci wàllum euh, jouer théâtre est que ñu ngi fayeeku ba suñu demee retraite sax dinañ am li nga xam ne mën nañ ko suturloo. théâtre dëgg war na mën a fay borom ba koy def li ci nekk mooy fii Sénégal boo ko fi def duñ ko amuluñ ko solo ba nga xamee ni bo ci duggé tay la nga ci yaakaar do ko ci fekk mais normalement métier la xam ni dafa wara fay fay euh, problème bi euh li mbëtt bëgg la bar bëgg xam nga fofu bu fekké ni producteur bi mo la gëna a bëgg xaalis yow en tant que comédien euh, bëgg nga xaalis mais ci producteur bi nga ko euh jema am mom mu nax la euh, yóbbu li nga xam ne nii waroon na la ko jox ci xaalis fay la ko alors loolu kañ ngay am xaalis doo ko am wala boo ko naree amit dana yéex da nga def ñaata production pour nga am xaalis xaalis boobu ñuy wax daal nekku ci lool parce que diggante producteur bi ak comédien bi foog ñu toog mun a waxtaan kenn bañ ndax sa morom ku nekk la nga ci liggéey ak la nga ci am ñu fay la ko ba mu mat sëkk. Eh,

xamal nit ñi lii musul am de mais war na mën a am donc moytu leen wala nga jàngal leen daal si loolu loolu mooy théâtre ku ne néeg bi ndax am na fenêtre néeg bu amul fenêtre bon sa xel dem ci Pape Demba njaay Lam euh, ñu gis ni yow bokk nga ci ñu dundal aar fii ci Sénégal bokk nga ci ñu dundal théâtre fii ci Sénégal nan gisee théâtre dem ak tey. théâtre day am seenam. yaa ne woon ma ni woon ye gisna kumani te yake maniko somanewa somanete dinaniko kaay kaay kaay waay mun na jël ku ne mu def ko mais nak euh, ki def théâtre mo upp chance ci téléfilm parce que bo tolew pour ñu yar la nga bëgg a est ce dina sorti xam nga du sorti des fois da ngay gis euh, film bi dina neex trop film bi dina yaatu trop mais des fois réalité yi des fois réalité dañ koy faté di faté réalité gëna yëkëti décor amul importance je pense que je pense que décor bi c'est bien mais réalité bi ni ngay wax nit yi boo nee dama né ñëpp ne nga ni loolu ëpp solo nga jëm ko def ci sen bop parce que dañu jëm a éduquer rek di jëm jël rôle nit diko def mais pas suñu jikko kenn joxuñ suñu jikko. d'accord léegi ni euh, biñu nekké nekkee ci biir euh, Sorano euh, femme bi mi ngi nan le théâtre nourrit son âme est-ce que lolu noonu deug la est-ce que théâtre dina xam dina xettali nit ba bu démé retraite sax mu continuer di ci dund. man nak damay santé yalla bu baax lolu duma ci sori ndax duma yegg yéeg garab di siyee garab bi kuma ragné théâtre tax ñu ràññee ma ku fonk théâtre tax ñu fonk ma kon di théâtre je préfère mourir debout que de vivre à genoux di joy rusna lolo. Dans doomu yi fonk la nak théâtre bi nga def so bëggee xép sa wala di joy. est-ce que hein? wala xam nga nit joxé na ay alal bu bari pour ñu xam ko pour ñu est-ce que hein? nga taxaw di joy man bu ma joy, découragé xale yi ma yore bi ma découragé euh, bu ma jooyee ku bëgg a def théâtre tey bàyyi ko. su Ibra italien seen xel dem ci la grande vedette la grande star. Euh, gis nañ euh, Ndeye ar, nga yàgg si aar xam ko bu baax di ko def ba ba tey bàyyi woo est-ce que aar day fay. ben ça dépend ça dépend ça dépend parce que xam nga dañ doon wax l'art ne nourrit pas son homme.

Euh, maa ngi fan de vous. dans euh, cette Ibri italien te sujet euh, ba mi ngi d'actualité lan nga expliquer par rapport au théâtre démb ak bon bon a man théâtre ak changement bu tax ñuy wax nit ki la rek bon tey loo gis rek man xam nga am ñoo xam ci daan dama am ñoo xam au niveau de daaray Kocc wala muy Sorano wala am na ay artistes yoo xam ne dama doon xool ci ñoom di copier ci ñoom am na ñoo xam ne ñoo yee virus théâtre bi doon nelaw ci man ñoo ko yee waaw et tamit noonu lay demee tamit ak yeneen génération yi et vice versa parce que boo duggee Sorano li nga fiy gis ci ay artistes xale yi dinañ fi mën a root ba doyal boo demee daaray Kocc xale yi di nga dinañ mën a root ba doyal ainsi de suite